taala si laa bëgg réewam te naw cees bari joom yàgga liggéey am na yéene cees am nga yéene cees am nga yéene cees bari joom yàgga liggéey am na yéene cees si la moxtaar ma ca gaar ba ca bijëm suñu maire bëgg réew mi te naw Cees bari jom yàgga liggéey am na yéene Cees yiw ñeme coono fayda ngor la tàmbale fonk na xam-xam wuti ko jariñ Cees taala daa war door taala moo yàgga door waay Cees seen ko mën a doolel mu tàmbale seen doom ji màgg na aka tey am fu la mébétam ak yéen yéem ci xam xarañ la ko teg taala tàllal na cees loxo taala tàllal na cees loxo suqali gox bee di ay yitteem taala tàllal na cees loxo suqali gox bee di ay yitteem cees kaay faaw mu jël cëram Cees kay jot na tey mu jël cër bi mu moo waay Cees dal faaw mu jël cëram Cees duñu kontur nguur waruñoo ñoo mëna kontar nguur ñun duñu kontar nguur taala neena du kontar nguur taala si laa bëgg réewam te naw Cees comme comme d'habitude nous sommes au travail euh, je voudrais d'abord euh, remercier l'ambassadeur donc de la République populaire de Chine euh, qui a bien voulu répondre positivement à une demande que nous avions formulée euh, il y a un peu plus d'une année. Euh, en effet, lors d'une visite au niveau de l'ambassade de, donc de Chine à Dakar, j'avais formulé, bien sûr en rapport avec une collaboratrice euh, notre regrettée collaboratrice euh, Khadi gaï qui s'occupait donc des partenariats au niveau de la ville de Thiès, j'avais formulé une demande qui venait en vérité de la jeunesse de Thiès et même de moins jeunes. Euh, demande qui consistait à mettre en place un parcours sportif. nous avons donc il y a un peu plus de deux mois reçu donc un courrier euh, de l'ambassade qui répondait favorablement, disons, à cette demande exprimée. Euh, et aujourd'hui, nous sommes en train, sur l'avenue Caen, de mettre en place donc, deux espaces sportifs, euh, ici et un peu plus loin vers le lycée. ça permettra donc à tous ceux qui sont intéressés donc, par le sport, la gymnastique, euh, etc. Donc de pouvoir profiter de ces espaces-là. Euh, maintenant, nous envisageons pour l'avenir, bien entendu, euh, de généraliser ça au niveau de Thiès. Nous aurons l'occasion de recevoir ici donc l'ambassadeur de Chine. pour éventuellement donc l'inauguration. Ça se fera en quelques jours, donc tout, tout sera terminé s'il plaît à Dieu. En tout cas, c'est ce que les techniciens nous ont dit. Bon, ils auront l'occasion donc de le confirmer les gens avaient une façon, une, certaine façon de, dérouler, disons, la coopération. Euh, dès que nous avons été élus, nous avons apporté quelques innovations. Parfois, éviter, disons, de voyager et de chercher à avoir certains jumelages, mais se contenter des relations avec les ambassades établies ici au Sénégal. Parce que nous savons que les ambassades ont des possibilités dans un certain nombre de domaines. Parfois, il ne faut pas faire dans le macro. Il ne faut pas toujours chercher à faire dans le macro. Parfois, le micro peut permettre de régler des problèmes, de soulager des populations. C'est ainsi que beaucoup d'ambassadeurs ont eu l'occasion, dans le cadre donc de la mise en œuvre de Kaïtiès, de visiter, disons, la ville de Thiès. Aujourd'hui, c'est euh, autour donc de l'ambassade de Chine et nous nous en réjouissons. Vous savez que nous avons dès la première année lancé les journées médicales de Thiès. Ça va dans la même logique. Voilà, donc, euh, journée médicale de Thiès pour tout le monde. Nous avons lancé le concept Sport pour tous qui a démarré même au niveau de, euh, de, l'hôtel de, ville de Thiès. Bon, nous voulons donc, par la mise en place donc, de ces infrastructures, de ces équipements, de ces sports, espaces sportifs et, plus tard d'un grand parc sportif, nous voulons mettre à la disposition de nos concitoyens, disons, tous les moyens possibles pour leur permettre de s'épanouir. Nous avons Euh, lu euh, weesu at a ngi nii ci ginnaaw euh, seqoon nañu ay tànk demoon seeti ambassadeur u Chine bi ñu demee waxtaan ak moom xamal ko ni ko dañu bëgg ñoom ñu jàppale ñu ci ñu mën a aménager parcours sportif ci Thiès ba may dem nag maa ngi àndoon ak dem si yàlla si Khady Bintou Gaye yàlla yàlla yokk yërmande ci moom mu mel ne ay ñaari weer ci ginnaaw noom nangul nañ ñu ko ndax bind nañu xamal ñu ne vraiment fas nañu yéene ci biir kaay Thiès boobu ñu leen woowoon wuy si euh, booba la ñu sant seen mbokk yi nga xamante ne ñoom ñoo leen fi nekkal euh, am liggéey bu leen sant beneen ñu ñëw ngir samp loolu kon ñi ngi tàmbalee ci ñaari espace sportif muy bi ak nee ca kanam tuuti booru lycée balaa nga fay egg bu ko defee waa Thiès ñoom ñoo bëggoon lu mel nii am na ñoo xam ne ay ndaw lañu ak ñoo xam ne sax duñu ay ndaw te xam ne yëngatu yëngal sa yaram ak boo amee jumtukaay yi ci war ak ñi la ci mën a jàppale dana mën a am solo ñooñu ñoo ko daan laaj ñoo ko bëggoon tey jii suñu borom jaarale na ci Chine loolu sotti ah ñuy ñuy tàmbali liggéey bi nga xam ne ay fan ci ñoom liñ ma wax liggéey bi dana àgg bu boobaa nag ñu teg pexe ba ambassadeur Chine ci boppam ànd ak équipe ñëw fi bu ko defee ñu. ñu ñu fesal loolu waaye nag fas nañu yéene it yaatal ko ba mu gën a yaatu ba goxu Cees yi képp koo xamante ni euh, loolu yitteel na la ñu fexe mu am loo xam ne dana leen gën a jege waaw loolu daal moo waral lii alors comme tàmbali woon nañu def loolu ñu tuddee ay journée médicale u nga xam ne at mu jot euh, waxtu bi nga xamante ni jamono bi nu fale woon bu accès au lieu ñuy def ay anniversaire di puukare yooyu dañ ko delloowaat askan wi di ci def journée médicale maanaam di nga xam di consulter nit ñi gratuitement di leen faj gratuitement di leen jox ay garab gratuitement comme loolu dañu tàmbali woon nañ ko def gis nañ nag santé dafa am euh, lu mu lëkkaloo ak tàggat yarab waaw muy sport bi léegi moo tax tamit lii daa bokk ci luy mottali liggéey boobu. bi nu ñëwee dañoo gis ne ni coopération daan doxee. dañ ko dafa am luñ ci chopar ni tuti ndax yenn say du toujours ngay am moyen yu la may nga dem rew yu bëri ngir defar fa ay jumelage ñu ni am na di rew yoy yu ne fi ci biir dekk bi te ñom am ñu ay buntu am ñu ay pexé yo xamné ne tereelin mayna len ñom ñu jëfé ko fi lola waral ñu set lo xamante ne na ci tepp-tepp lay tollu waye comme tepp ay jur yu bu fekkee ne ambassadeur yi nga xam ne ñi ngi ci biir Sénégal te ñu leen di woo ci kaay Thiès ñi ngi wuy si kenn ku ci nekk bu ñëwee def benn jéego bu ndaw jéego yooyu bu yàggee dana daal di mujj am solo loola nag am na yeneen yu ngeen ci gisoon ci ginnaaw waaye lii ci la bokk. bu moyen amee ak bu moyen amul li nu war mooy Thiès lépp luñ ko yéenee fu nu ko yaakaar ne mënoon ko faa wuti ñu wuti ko fa fu nu yaakaar ne waroon ko faa mën a jëlee ji ñu jëli ko fa lépp lu nu jàpp ne da koy yàqal. te nu mën koo dàq ñu dàqal ko loolu mooy liggéeyu maire si loolu lañu nekk bu cees amee euh, budget buy fonctionner ñu man ci jariñoo pour liggéeyal ko daanu ko def bu jafe-jafe amee ndi ci diggante bi te mu am lu jàmp loo xamante ni laaj nañu dem wuti su nu waree leb sax su nu waree lijjanti suñu waree seet suñuy xarit ak suñuy am di jàmm ngir mën a dem ñoddi ngëneel yooyu mu dikk incha allah danañ ko def ñaan ñëpp rek. ñu xamné ne lu ñëpp bokk dañ koy euh bu fi mbir mi nekké nit ñi dañ ko wara kenn ku ci nekk def ci wara def kem katanam ngir du yàqu ndax gis ngeen ne abonu camp bi ñëpp min nañ ko ci xay gis ngeen ñi ngi jëmbataat xay mo xam maire ville mo xam suñu lekkelo ak projet bi nga xam ne ñi ngi koy def ak allemand yi ñi ngi liggéey ak waa camp ñi liggéey ngir dundalaat xay gis nga gabion yi un peu partout ñi ngi koy defaraat mais di nga gis ay nit yu ñëw di leen buddi nous avons fait exprès def ko fi éclairage public tamit dina ci am ngir gën ko sécuriser ensuite soriwul gendarmerie waaye nit ñi nga xamante ni ñoo koy jariñoo mu amal leen solo ñoo ko war a sàmm ci côté yëpp sàmm ko ci côté wu matériel bi vraiment bu nu dikkee kenn ku ci nekk ku def bàyyi sa morom boo paree nga keneen ñëw def. am na loo xamante ni suñu wàll la xam nga tey jii am na loo xam ne faw nu jokkoo ci ak ñi nga xam ne ci wàllu état ñoom lañ fi teg ñu yore mbirum sport ndax tey jii am nañu benn inspecteur départemental très dinamique muy mamoussa Moussa Cissé di liggéey ci wàllu woowu dafa mel ne moom mooy sunu conseil ci wàllu yooyu waaye kon lii bu ñu ko defee it faw nañu koy jariñoowee faw nu associé ko ci mbir mi mu jox ñu xalaatam ndax moom moo lëkkaloo ak nit ñi nga xam ne ñooy gën soxla lu mel loola bu boobaa nit ñi war a toog danañ toog kii taxaw ni moom euh, toogal na fi boppam en tant que ki nga xam ne moom moo division sport ci mairie bi mais toogal na fi tamit madame Dramé mi nga xam ne moom directrice des affaires sociales de la culture et des sports loola Euh, mën nañoo wax ni ñoom ñëpp toogal nañ fi it ki nga xamante ni mooy euh, président Ismaïla Diallo mi nekk président commission sport ci ville bi te ma jox ko délégation ci wàllu yooyu ñoo ñëpp nag danañu daje seet ak ñi mu concerné ñëpp ñu waxtaan ba xool mbir mi naka lañ koy mën a sàmmee naka lañ koy mën a jariñoo ba mu am solo ba nit ñi nga xamante ne aussi ñoo ñu ci jàppale ñoom itam beneen yoon ñu sawar ànd ak ñun ci yeneen ndax ñoom wax nañu ne au delà de lii am na ay action yoo xam ne ci wàllu social fas nañu yéene xuus ci ak Thiès ba population yi mën cee gis njariñ